loolu moo amoon stade euh, Demba Diop kooku Balla gay la ak euh, ak euh, Tapha Tine ci loolu la nu nekk ba léegi danoo bëgg dañuy gën a dugg ci biir combat bi pare demagunu mais dama lay laaj rek sa relation ak la famille Ndiaye. waaw foofu nag yàgg nañu tey est-ce que xam nga sama deuxième combat sama combat Papa Sow Aziz moo ko tëgg. waaw je me rappelle. te ñu ngi te ba pare may ma xaalis. Aziz moom a njëkk a fayal salle de musculation. 2005. 2005 waaw Castor. salle boobu maa ngi fa fekk. te booba Tafa Gueye lay àndal. waaw Tafa moo doon bërëm. Tafa Gueye moo doon bërëm. boobu maa ngi fa fekk Yékini jour boobu laa njëkk gis Yékini. nga xool ko waaw. bi nga ko xoolee looy wax. ba mu ngi bëri que. côté station euh, Ndiaye station juste côté bi noonu. ba passé station juste voilà. nga xool ko fekk fa Yékini junior. nga xool Yékini. waaw ma xool Yékini gis ko après nga wax wax ma dara après ay jàpp ma. <laughs> ne woo grand bi ma ma gis ma gis après Yékini junior mais muy entraîné entraînement yi méttee métti tëgg yàlla. xam nga kalaax ba Yékini moo doon favori. moo doon favori moo doon favori. moo doon lamb moo doy waar. mu nekk di sport sport bu métti. waaw. Mhm. ma fekk ko foofu nag dëgg yàlla. Mhm. nga xam ne kon famille boobu 2005 ci laa débuté 2005 ci laa commencé avant 2005 commencé ànd ak ñoom. ma daan dem Kastoor nag xam nga man dama timitoon moo demee damay toog à bàyyi moo nekkoon suma xaar ak Ahmed affaire yu ñu toog ko fa fekk El Malick et tout ça sama xarit bu nekkoon foofu Cheikh Fall. xam nga loolu yàgg na yàlla boole ñu ne ko dëgg yàlla amu ci benn regret. Mhm. si tous les plans nag. mais fii ñu toll nii ci wàllu koom. damay gis ni am na yu ma dégg. ci affaire ay kër yuñ la wutal ay biens yuñ la wutal encadrement bi baax na ci loolu laa bëggoon nga ñëw nga wax quoi. waaw sport nag dafa am lu mu baaxu bu weesoo sport am na am nga beneen ah, vie boo war a dund làmb dafa am après làmb te après hmm. làmb moo gën a métti retraite est très important ni du ko sóor aussi euh, te boo amee tamit aussi ku la ciy xelal ak ku la ciy jàppale di hmm. préparer sa avenir ëllëg hmm. loolu wax dëgg yàlla ci cadre boobu moom tiituma ci awma lu ci xel ñaar awma ci lu dara man li ma war moom ki may jàppale ci lépp xam nga la gën a fonk moo koy def muy sport. muy entraînement muy entraînement muy entraînement combat la ci fay ñaata la. <laughs> ab ab ndur bu reetaan. Ah, mën na ko wax. xam nga xam ma tey. mais li ma gën a jaaxal waaw pourquoi bu ne diw leen ko fay. te chaque jour ñu ne Sadio Mané fay nañ ko nangam. chaque jour ñu ne Krépin fay nañ ko nangam. Krépin Diatta nangam nañ ko fay. mais pourquoi boo ñëwee ci Balla Gaye wala Eumeu Sène boo ko nee ñaangam lan la fay te kat ñu kun fi fay xam nañ lan la fay. mais c'est parce que duñ ko déclaré CNG ah duñ leen di fay. mais ça def am na léegi ñu ngi commencé. di déclaré non duñ leen di fay duñ ko déclaré CNG. ah du leen la Babacar di wax. waaw ah. yow ci li nu déclaré CNG ñaata lan la fay. man dew ma CNG di. yow lu fi ñu toll jot nga sa avance. jot naa sama avance. kan moo yor sa avance. Aziz. moom moo lay joxal avance ba pare téye ko. waaw. ah bon kon noonu ngay bëree moom. yow looy xam ci li nga am. xaw ma. ma paree ba pare rek laay def calcul. confiance rek. non bu bu ma sëkk parce que man sama xaalis xam naa bougéwul hmm. moo xam nu mu mënti toll bu ma ko soxlaatee dama koy jëli. dama koy jëli. waaw ah. ba ci combat bi ah. moo waxaale combat bi xam nga bàyyi mooy promoteur bi. Hmm. mais Aziz moo waxaale combat bi. moo la ko proposé aussi. bu doom bàyyi maa gën ak Père Bakay. waaw waaw yeggal yeggal bàyyi mooy promoteur bi. waaw waxaalewul sax ak man. ba Aziz moo waxaale Aziz da waxaale ñu juboo ci kase mu bëggoon def li gars yi di def saa yu na ko du ci dal. maanaam ñuy négocier maam. mais Aziz ak làmb fu mu toll ko Aziz du sa manager bay waxaale. waaw ah, non nga làmb manager du ko waxaale nag. léegi manager waxtaanatul. non non manager waxaaleetul. yeggagunu CNG. bàyyi bàyyi ko mu développé ci loolu bu ñuy dem CNG. bu ñuy dem CNG waaw dégg leen déedéet du ratifié dara. bu ñuy dem CNG Babacar déglu ma bu ñuy dem CNG. père doo mu dafa am manager bu ñu dem bu ñuy dem ba la ñuy ñëw di ko kan dem. waaw daal 10 pour cent amul statut wu agent. statut wu manager la ñu reconnaître. loolu boo yeggee CNG la manager xew. waaye tànk yaa ngi ci mbedd mi di wax. mais soo signé contrat am na benn papa yi. déclaré léegi reliquat reliquat bi. am na benn papa yi ah, c'est manager qui qui va recevoir le le loolu CNG la waaw ah, donc donc donc. papa mbër bi il faut que corriger yenn yi mais duñ fi corriger dara. Ah, mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce manager rôle manager en tant manager est-ce que rôle ménageur. moo koy def ci làmb. ñu ngi koy def ci làmb que entraîneur bi a sant. ñoom ñu ngi def ci làmb waaw. dire man. je peux pas répondre à la benn benn voilà moo tax kon li nga wax ne ménageur man li ma xam ci ménageur mais Babacar dafa bëgg a guddeel suñu émission non du ko guddeel da ma naqari mooy Babacar xam na li ma wax quand on soulève quand on soulève problème cest dire c'est des opportunités yu ñuy war a mën a saisir pour régler yenn problèmes yi. non problème bi tey mënuñu déclarer benn problème un combat de Balla Gaye avec des centaines de millions xam nga on ne déclare pas ça au CNG muy benn. ah loolu loolu Balla Gaye nga koy wax. mais est-ce que moom moo ko gis est-ce que moom moo ko gis gis gisul loolu. non mais gisul contrat gisaanu. d'accord centaine de millions lañ signé quand même. c'est ça d'accord mais c'est un donc xam nga tubaab këyit la xam moom këyit la xam. qu'il faut sauver man benn ménagère ma sama ménagère ménagère yi boobu. bu ma xam. Zac Dieng laa xam ne yàlla na ko yàlla yërëm taxaru ko àjjana maanaam manager boobu moom musuma gis manager bi. non intellectuel la. day ñëw say entraînement dafa jàngoon management da lay taxaw di la woo. di waxtaan ak yow. boo manqué xaalis moo lay may xaalis. effectivement loolu manager la. musuma gis su mel noonu. mais boobu da doon da doon jël mais mais doon na jël aussi c'est c'est c'est 10 pour cent. mais pourquoi pas c'est son plus haut. attends 10 ah, pour cent bi ba mu ko commencé jël yàggul de xam nga kañ la commencé jël. waaw combat bu ndaw ba combat bu mag. sama premier grand combat moom dafa may xaalis. 300 000 francs lañ ma fay. Mm-hmm. sa premier grand combat sama premier grand combat 300 000 francs lañ ma fay. du ma ko fàtte mukk tey tuyaa ko day toog nga xam ne yoruma xaalis mu ne ma loo soxla ma ne ko ah man de yoruma xam mu xam sa da laa bëgg ak yu kenn xamul. Hmm. sa premier combat trois cent mille. trois cent mille tey sa combat. non pas tey sa combat sa cachet bi gën a mag. ci la mais non mais fi mu nekkoon baax na fi mu nekkoon il faut ñu wax ci affaire ménagerie pour ñu ne ménagerie mënoo dund di dund comprendre côté bi den préparé leen yéenay wax. waaw ñun pare nañu ah. oui ayca bàyyi bàll wax. di ma di ma lijjanti. Hmm. di ñëw entraînement di def lu ne. pour ma am combat. voilà xam lu ma santoon liggéeyal bu soobee yàlla dina li di am nii di ko liggéey rek laa sant. Hmm. ma defee ko noonu moom ak suma turandoo bàyyi bàll wax dëgg yàlla ñu assisté ma nag ak sama hmm. daaw ñu réeru léeg eh, sax dañuy xuloo ñoom ñett. mais man maay gérer problème jubale leen. ba sama papa bëggee nekk manager aussi tamit man maa fexe sama papa nekk manager mooy bi Jacques Dieng waaw ba avant moo gaañu sax sama papa da bëggoon nekk manager kon jamono jooju manager pour nga nekk problème la. waaw gars yi du ñu xajalaate léegi nag per Jacques moo fexe sama papa. am na bi voilà su ma doom yàgg yàgg <laughs> dafa ñëw. ci sa comprendre nga. booba di vraiment nag bu dëgg yàlla ménageur boobu moom maa koy sant di ko gërëm. waaw day lijjanti mbër day xool mbër ci lu mu nekk. bu dee gaañu na bu dee sonn na wala amul combat muy xool ban combat la ko war a mën a wutal. loolu mooy rôle ménageur. mais mbër yooyu parce que mbër yi naa ko nangul moom. voilà dafa am ni yow ba nga déggulee. en fait mhm. xam nga doon na ci écouter le manager. mais peut-être tey ba nga déglu déggee daali am na ñu dox seen diggante. xam nga c'est-à-dire c'est c'est ça aussi mooy agent yi. c'est ça mm. mais père Babou maa ngi moom du ñu du ñu nëbbante dañuy waxtaan tout le temps. waaw ah, kon père Babou kañ père Babou kañ. sama papa la non ah. père Babou sa papa xam nga sama papa la te moom sama papa léeg-léeg am ah, loo am sama papa ma la yóbbu ci mu koy wax. Mm. ayca buur kon amuñu nëbb quoi. mais ñu ñëw ci tafatin bi ah. ñëw du xool ci loolu nekk ak looy def. waay mm. ayca buur Balla Gaye 2 euh, en parlant de Jacques Diène. Mm-hmm. man je xam naa famille Grand Yoff li nga wax effectivement wax nga fi mu jaar ak yow. Mm-hmm. mais tey gis naa fa même xam naa ne ils sont dans le besoin. Mm-hmm. sonn nañu. sonn nañu ba def naa ci benn reportage ak soxnaam si mu fa bàyyi. xam naa aussi ay doomam. du ñu aussi la benn fa moom dañuy tendre la main wala di ñaan. Mm-hmm. mais tey opportunité la ci man. ma toog ak Balla Gaye 2 na ko wax dëgg yàlla. incha allah jaar fa. Euh, jaar fa. nga dimbali la famille de Jacques Diène. mais nag lii lii nga def nii. Hmm. amoon na lu nga xamante ne boo ko defoon moom moo may a hmm. loolu ba nga ko yëgee waroon ngaa daw jëw ci man. Hmm. parce que avant ñuy ñëw fi mais xamuloon non pas lii maanaam occasion la rek moo xaale xamoon na sa relation ak xamoon na sama relation non xam nga jërëjëf xam nga pas relation mais fu ma jaar ak Père Jacques Diène non non ak ñu nekkee suma relation buur xam nga xam nga xam tey dañu tudd Jacques Diène d'accord maanaam dañu tudd dañu tudd Jacques Diène dañ ko tudd xel dafay fattu xel day fattu mais dañ ko tuddu xel day fattu subitement loolu ñëw waaw ci sama xel effectivement waaye joxe yiw ak yokk yiw yàqul dara. nafiyeem bëccëg bu ñu génnee. xaadim Ndiaye de ku mën a dimbali xaadim Ndiaye na nga ko dimbali bi wàjji lay taala. lu leer lu leer kay wax sa xarit sa xarit waaw jot la rek yàqul dara mais sa xarit la dem naa fa. sa xarit la dem naa fa. waaw seeti naa ko xaadim c'est na ami. léegi ba la de question bi ma lay laaj. xaadim xaadim ma ñëw. xaadim dafa ñu xam ñu bëri xam sama relation. à part maag <laughs> moom yenn saa yi attaqué ma xaadim sama xarit la xaadim bi mu waree bëree xaw ma kan te feebar teg ko hôpital. man maa fa dem. daan teg def ci moom ngan li reportage. su dee muy bëri comme xaadim tamit ba mu bëree ak euh, Bruce Bruce Lee. xam nga après dafa am dëj. man maa fa dem sa waay la sa waay la. xaadim sama waay la. sa waay la. nit ñi xam nga rek jaxase. non ak kaar bi tamit dafa xaw karaayis. day de ko ne. <laughs> non yaram ba jar njaayeen la jaay njaay la. des fois mu attaqué na mais des woo ko di ko wax ci bekkaay sama yoon nekkul sama xarit. non ku baax bi dara néew ci ku baax bi dara néew xol bi dara. mais benn benn question la pour yow benn. nga tontu moo ko ci ñaari tontu. Euh. bala bi dee ban benn question ñaari tontu. waa mën na nekk mooy. ban defet moo gën a métti ci làmb ak ban moo ko ci gën a neex. bu ban moo ci gën métti. non amul bu dund mbéy a amul defet bu neex si àdduna. Hmm? de defet. defet la yàlla ci yàlla musal. sa defet booy ñaan noo ko dundee. non alhamdulilah. dundee première defet contre Bombardier moom moo ko métti. déedéet. defet nga man contre booy ñaan laa jàpp. mais yéen moom mooy tontu wala yéenay tontu. <laughs> ñoom ñoo lay posé question ñooy tontu. ban ma ci côté bi nag war ngaa wax vraiment vraiment waaw. defee bàyyi baal am sa micro. sama micro man dama ko saisir man jox ma micro. kër gi eh, jaxasoo na dinañ la jox micro de. kër kër gi jaxasoo na. Eh, ban combat ban. ban combat moo la gën a neex victoire boo xam ne vraiment tey bi nga tëddee nelaw nga nelaw yu neex. wala waaw nelaw ma. ban la. <laughs> on dit vrai on dit vrai. waaw. sama combat Yékini. waaye. dëgg yàlla si boobu. parce que da nga ko daan nekk roi des arènes. non pas roi des pas daan sax nekk roi des arènes. en fait li ma ci li ma ci def constat mooy dañoo nekkoon ay génération ñu ñëpp yaakaar du ma ne dañoo ragal Yékini ah. hmm. ñu bëri bëgguñu bëri. loolu dama ko def ko sa Tafatine la de guerre mu seen asafurla pas mu mu seen bëggoon na bëri moom moo Lo et tout ça mais ak permanence bi ma def ba tollu foofu. Mhm. bëri moom nag wax dëgg yàlla Yékini nag. Mhm. daan ko loolu loolu leneen la. wax dëgg mhm. yàlla. défaite victoire boobu moo ma a neex si victoire. moo la gën a neex. waaw mais pourquoi nga am victoire bu la neex te moo ma défaite bu la gënoon a xarit. Ah, waaw xam nga défaite xam nga dëgg ma victoire yëpp a neex. waaw waaye defet yëpp a naqari. ban ban moo ci gën a ah, métti. mais bu ci gën a gën a métti. mais xam nga boo. est-ce que du deuxième défaite wu. boo mus sa daan boo mus sa waaw sama sama sama. juste combat ak moom bombardier seen seen première première. victoire défaite bu ma njëkk a moom am na bu ma métti mais damay expliquer bëgguma di expliquer ay détails. ñëw rek yàqu ah, la rek. sama défaite ak bombardier premier bi. premier dafa soof. dafa soof. Mhm. dafa soof waaw mhm. ah, non. et puis làmb bi dund yu métti. quoi métti na ma parce mu demee la quoi. yii moo tëgg xam non amul fii moo tegu da nga daanu. ah kii moo ko yaa ngi doon ànd xam nga nii laay bañ ay détails laay bañ. xam nga ay détails laay bañ. comprendre nga boobu métti na ñoo ngi ba sama écran bi xool. boobu métti na ma waa léegi boobu métti na ma problème duñ ci détail loolu la. waaw bu ñu ci xuus. duñ ci xuus parce que xam naa yow xuloo ngay bëgg wala. xuloo moom yow moo xuloo yow. non parce que non roi des arènes nga perte ko roi des arènes non walla kon perte roi dafa métti. waay waay si bokkul loolu yëpp rek dara. perte couronne dafa métti quoi. Mm-hmm. mais mais mais yow. ci est la Balla ñaanul yàlla am ci làmb kan la yàlla mu daan ko ci làmb. Modou yéen da ngeen ma a <laughs> ma bëgg a PS quoi. yàlla nga moom yàlla ci defet <laughs> yàlla bu ma ma ci defet yàlla bu ma ma ci defet. yàlla boo amati defet nga léegi. tafaatin tafaatin parce que pare nanu ah. tafaatin loo koy wax. ak moo parce que combat boobu bawal fonk la. te ñu ngi lay waaj. 200 pour cent bawal xam nga ko. ah bon ah yow xam nga ni bawal ñu ngi lay waaj. ah bon yaa ma ko wax. ah non ba Tafatin xaw na la ko wax na la ko keroog. et puis Tafatin la wax ni yow amoo doole. cest à loolu mu metti la. waaw loolu wax mais mais lu tax mu mu piqué la noonu. Ah. cest à loolu daf la pike damaa ñëppay sentir que ni daf la piqué. waaw damaa xam ne da borom jom la waxal rek. Mm-hmm. dafa boroom borom ak koo xam ne am de défi moom mooy loolu. Mm-hmm. te man xam naa ne Tapha Tine ginnaaw moom moom mun a am loolu te moo mag moom mun a am loolu ñi ñaan dafa am doole asuma ak man. Mm-hmm. Mm. waaw loolu moom. jaral na la fi ñu toll nga travailler bu baax. père man Casamance a dëkk doomu Casamance laa doomu Joola laa. ay coupures de vidéo yu muy entraîné. <laughs> doomu Joola laa doomu Soose la doomu Séeréer laa doomu Balanta laa doomu Baynunke laa. Mhm. doomu Saraxule laa. Mhm. doomu dëkk la rawatina géejewaay bi ma dëkk. bu dee làmb rek ci côté encadrement ci côté SAF ak ci côté mu munti doon tiituma ci dara. comme combat bi bu yeboo gars yi seen xel dal. sama supporter di nga liggéey doo dem France toog fa di. non yow fekk nga ma France musuma ñëw foofu am doo génn xam nga nu mel. dem naa fa damaa dugg ba INSEP. foofu daa am génn. déedéet dafa am génn balaa ngaa dugg sax. problème la la fay dugal rek. voilà amul génn am ñoom dañuy ñëw sax laa bëgg ma seet. dut la gis dañ dul dugg. te maa ne damay wax pour ñu visiter pour. ñu sacrifice bi mu laaj di nga ko def. defoon naa ko. Hmm. ba tabaskee fa je crois. dama koy defaat waaw. Mhm. dama koy defaat. ah bëri tafaatin daf may neex. Ah. man ba balaa maa balaa maa bëgg dara dara dara dara ñu naan mën na ko ak mënu ko. Mhm. loolu c'est important si moom. ak doole ji waaw yéen a ko gis mais man gisuma ko. non mbooloo moom ci làmb. wala bëre yàlla defal na ma lu mu lu ma koy sante bu baax a baax gën ko sant sax laay wax. Uh-huh. mu ne wàllum staff mbooloo bëgg supporter ak yu demee noonu yow ci tiitukaay samay supporter laay wax ñu waajal bis boobu ñu ñëw bugguma sax Tapha Tine am fa benn place ndax damay dem pour liggéey reyante ñëw te bu ma ñëwee. bis bu ma ñëwee. nee na moom moo doole moo ma dàq bëre. ci 2013 dañoo bëri ma duma ko daan ko. kon Balla ba woon. 2010 2011. Balla boobu bu yeboo ñu. bu wow koŋ ngeen gis boobu bu xeere. ay la maay raw xëy xeeru géej. loolu moom bu soobee yàlla. dafa til lu mu wàcc côté entraînement na ko xeeb. waaw loolu moom maa la ko na dem fu ko neex. day mu wàcc xe bu ko bëggee. waaw est-ce que dina ko def. waaw ah, da koy def day cooki. non day cooki. buur jëlool nga ma fi mooy rek mooy la diw dama koy duma. dama koy duma daal ko. man la est-ce que si nga ne ma buur déggu ma. Tafatin ñemewul xeex ak man. Hmm? na mukk Tafatin ñemewul xeex man munu ko sax. lay lay la. Hmm? xanaa fa nga jaaroon ak moom ngeen jaaraat. non amul fa nga jaar Tafatin dama ko kana maanaam. dama ko maîtriser. même bu dul door ko ay affaire ay ay gàllaaj ak affaire dama ko maîtriser. koo xam ne da ngeen bëri mbapat xam ko ci lépp. maanaam ça cest à moom dama ko xam. dama ko xam. da nga ko maîtriser quoi dama ko maîtriser dama ko téye amee sama loxo moom. Mm-hmm. moom mbër bi laa wax de. bu la nee puus ak da ngay wax ay maîtriser ñaan gàllaaj waxuma wax gàllaaj dama ko ci bëri Tapha bu ñu jàkkaarloo lu muy waaye def xam naa ko li mu bëgg def xam naa ko lu muy def xam naa làmb la rek dama ko wax mais dama ko maîtriser boobu ci côté boobu. Mm-hmm. ak Casamance. waaw ak Casamance Balla dina dellu bi baayam di nekk yàlla na ko yàlla xaraa jana moo na mi duba lees li mhm. mu fi nekk jege woon nga lool Casamance mhm. mais dafa mel ni après am na rupture est-ce que fi ñu tollu woon nga pour delluwaat nag carrément waaw ñu ngi sant yàlla baax nag wax dëgg yàlla ñu ngi alhamdulilah ndax man doomu Casamance lépp li nga xamante rek maa ngi koy def ak sumay nit ak sumay waajur ak su may mbokk ak sumay mag maa ngi def pour gën a jege. am am nañ ci yàqin bu baax. am nañ ci yàqin. moo tax daal <laughs> yàlla baax na de. dafa am euh, asbeka yi mënuñu ko kii bu ñëw bu fii te waxuñu ci kan bi nag moom moo xew. non balaa ñëw ñëw kan. waa kan parce que léegi dañuy tàggatu ko ci ci xaaral yow li ngay wax kenn du ko dégg. <laughs> et eh, yéen li ngeen ma def neexuma. maa eh, li ngeen ma def neexuma mais non parce que am. dafa am sama benn rak bu envoyé message ba du 100 pour cent. mu ne hmm. ci communication am contre Tapha Tine Balla dafa waxoon 3-0 dafa xew. Hmm. et boobu euh, il faisait allusion à Modou Lô mais mu ne vu que Tapha dafa daan Tapha deux fois ak benn yoon ba pare beneen yoon mu daan ko arène ndax pare nga pour troisième fois. Tapha ci boppam moo la gën a xam ne 3 la. équipe nationale 3 rek la ñuy dugal de loo mën na fexe 3 yi dugg. <laughs> waaw yi moom mënoo fexe bu soobee yàlla bu dugg. Ah, waaw ah. incha allah Modou. Ah. yi day dugg incha allah. ban kon kaan bi. kaan bi keroog jël naa ko la carte bi may def muy wax ay.